troisième premier ministre bi. sama séeréer la yàq naa ko lu ne sama séeréer la je veux pas parce que. on a fait la paix biir. Euh, <laughs> dara on a majorité présidentielle tu know booy na nga def comment ça va on a repris comme si rien te yow yàq nga ko lu la. lu ne non moom tooñ wax dëgg ba nag moom tooñoo ma fayu mais pour mu pare pare naa ci baal naa Ablaye Wade billaahi Ablaye Wade rek laa bëgg.

man maa tax ab Ablaye moom Habib si mu dem Kër Massar représenter le parti quand le parti nous avait demandé de de de de de, de faire les 42 ah, après mu soog a dem Jolof. mu dem non non moom Jolof la mës ne. moom mais moom jëkkoon na dugg ci parti bi génn ci coordination des cadres génn. parce que son goro Daouda Seck était PS. mu bàyyi après ñun ñoo ko jëliwaat. quand le Macky Wade Abdoulaye Wade m'a dit de mettre tous les cadres. dans le dans les ces dans ces meetings ci laa ko yóbbu ci laa amee l' événement de 6 avril gis la pancarte de Kër moo tax ñu dem ñu ne waa Kër section Kër Massar nekkoon nañ fa te Habib Sy représenté woon ñu jàppi ko yaakaar ni famille civile bokk. d' accord ci biir op ci biir. rëbës prison d' accord. alors mooy coowal moustache ci ñu yeeg yooyu léegi mu jox ko lu nekk mu jox ko lu nekk tey léegi anamu. d' accord ce sont ces gens là qui qui des ecto place j'allais dire euh, des meubles qui ne disaient rien du tout